loolu Serigne Bamba ci xol dara da cee xajul dëggal ni ko Carlou D woyee woon noonu la boolee euh, ay artistes ñoom ñëpp ñu woyandoo ak moom c'est une très belle chanson un très beau titre Carlou euh, D ñu ngi ko ciy félicité encore en tout cas woy bi euh, yóbbalu yóbbalu yóbbalu yóbbalu màggal la xam nga màggal gi yegg si na ba noppi mu ànd ci ak ay ndaanaan yu mag Fatou Guewel entre autres Aby sama xarit ñu ngi koy nuyu yaayu binu sirexo gi ànd na ci itam ak yeneen ndaanaan ah, ku ci mel ni ñoom Mame Goor Diazaka woykat yu mag yi daal la dajale Euh, pour li nga xamante ni moo di yóbbalu euh, màggal euh, ñu waxaat ko rek Serigne bàmba ci xol dara da caa xajul télévision Futur Média ci mouvement su préparation wu màggal xam naa ne taalibe yi nekk bitim réew seen xol mu ngi fii ci réew mi ñu ngi may wax ni aéroport yaa ngi fees dell saxaar yi dañuy ngaan ñun ñëpp bu ñu duggee ci ci oto yi wala ci avion yi wala ci train yi pour jëm tuuba dañuy simmi suñuy mbaxane toog suñuy wëris fees dell ak xaalis ñu jébbal lépp njabootu Serigne Bamba daf ñu koy jaral taalibe dëgg na bëgg naa muy dégg saadix saadix gi nag taalibe bu ne bëgg na koo dégg et fi mu tollu tembe defe naa événement bi ñëpp di pare euh, mooy 18 euh, euh, safar di màggalub Serigne mbamba wooy wi nag daanaka moom la ñu def yóbbalu màggal Carlou di boole ci ay nawleem en tout cas lu ma ci wax doyul parce que woy la boo xamante ni dafa nekk hymne pour képp kuy taalibe boo dul murid sax da koy woy ak ñun ñi nga xamante ni ñoo fonk woy wi alors Carlou on te félicite daañu ànd ak Alfi euh, ci li nga xamante ni mooy euh, li mu ñuy toggal et puis je rappelle que ñu ngi leen di xaar ci téléphone bi beaucoup d' enveloppe yi ñuy joxe ay enveloppe bu paasu màggal la ñuy joxe ku ne ak fa ngay dal boo màggali jee 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 on regarde encore way bi gis nañ ci déggati ak ñeneen ak ñeneen ah kulim Dioum en tout cas vidéo bi actuellement mu ngi def feu flamme euh, ci internet bi bëri na ay vues ci diggante bi mu génnee ak léegi et puis mu ngi jàll en boucle euh, ci télévision Futur Média comme comme quoi lu fi baax wala lu fi riis euh, ñu won leen ko donc ñu ngi koy may taalibe yëpp taalibe yi nag ñu ngi leen di xaar ñooy joxe paasu maggal yi ci yeewu leen plus bi mooy supplément bu yeewu leen tous les jours ginnaaw magazine bi diggante 7 heures jàpp 10 heures bu ñu demee nag ba juste après permanence ak yaayu Bétek Marianne ak Amina euh, ñu àndandoo ak yéen ci yeewu leen plus bi on fait signe que ci ginnaaw téléphone bi euh, mu ngi mbii fa foore euh, ñu ngi ciy jéggalu pour ñi nga xam ne ñooy composé di woote parce que xam naa ne ku ne bëgg na ñu jox ko enveloppe bu waajtaayu màggal ñun ñii sax dañu koy laaj de man xam naa ne su ma mënoon a màjjal màjjal ni ñëpp waaye maa ngi màjjal ñu baax ñi rek waaw bu ngeen bëggee ma joxe sama adresse pour pour pour pour yu baax yi fu ngeen koy yónnee wala tur dëgg bi ah wala ma joxe sama turu assistant bi rek ah Mbaye of déet doo sama assistant yàlla te naan ma waaw doo ma yóbbaale màggal boo demee Touba yow fa man ne musuma dem Touba musiba la ñàkk faa dem lu leer laa la wax de lu mu woon kañ nga dem Mbàkke loo fa doon def da ngaa baali woon xanaa musuma wax loolu dama lay laaj rek ah man nga bëgg a dugal Alfi man ngay dugal désormais yow Alfi man nga bëgg a dugal man ngay tëmbajee en direct man taalibe bi. wallaay tëmbajee. man ngay tëmbajee mais dem naa Mbàkke. man ngay mbifa ma kii laa àndaloon madame Diouma Dieng. man ngay tibiri vidéo ci télé bi en direct. man ngay dugal araam ñu daggati ma ñu daggati ma dugal. araam man nga bëgg ñu dagg ma dugalati dugalati ma wax waxee ma. commentaire ba man nag sujet bu neex laa nag. waaw sujet bu neex laa nag waaw waaw waaw xam nga la Samba da koy wax naan xaw ma man rek ci ci dëkk waaye man rek ci réew waaw waaw man rek ci animateur nag sujet laa nag waaw laa nag quand même ah. sujet laa quand même ah. léegi mën nga bëgg a tibiri bi jox <laughs> yow ba ñu wàcc <laughs> yow ba ñu wàcc uy seytaane ñu ngi wax ak man ci oreet bi di du ñu mbi fafoore noonu ah <laughs> man kenn mënumaa tëmba jéeg sama rakk ji Seydi Ba wokku mi ci songoog jéeri koli Ablaye waa Jaasa ak ñaasa mbañik mbokk ndeyam bii baa ak Penda Ba yow kenn du yow Alfi li chroniqueuse yi di bëri ci sama yeewu leen bii yaa ma ci gënal waaw loo ma jox ma jël yaa ma gënal bii su njaay yaa ma gënal euh, keneen kii nu mu tudd kii yaa ay dara ak gën keneen ki nu mu ti may mun a mado man mi maa ko wax voilà an sama xaalis alfran sa ñoom maa jox ñeen fukk yi de <laughs> yow ndekki dara wax lu baax de yow ndekki tekki woo dara naka jekk sa kanam gi xamoon naan tekki woo dara waaye yàlla baax na yàlla na ma yàlla atte ak yow waaye may ma jàmm nga am ubbi wërsëg ñeen fukk lu mu mën lu mu mën lu mu mën ah lan la ñeen fukk mën allez on en profite euh, juste pour nuyu euh, suñu xarit yi nga xamante ni ñu ngi bànneexu ak euh, yeewu leen plus bi bis bu jot nga xam ni daje la ku ne fonk ko ñu ngi ci bégal bu baax suñu doom boo xamante ni tey la anniversaire am doomu Jaase Ola la Jaase ah, bu rajo Futur Média un grand technicien moom tamit techniciens yi nekk RFM yëpp moo leen mën moo mën moo mën Vincent moo mën Ans moo mën Ablaye Diop pata Ablaye Diop bërki dem ba nee naa ko sa pataawaay bii boo mayee ñaar fukki litre ci deret du tax nga jeex joxe sa deret ji Ablaye pata nga <laughs> bàyyu ngañ <laughs> donc euh, suñu doom Aminata Diassé euh, bu Aliou Diassé o bu Radio Futur Média moom tey la bësam euh, c'est de la de son de de son papa Diassé o de sa maman Mame Diarra Seck ak baayam bi ñaari cër laa am ci moom nijaayam laa baayam laa donc c'est notre c'est notre petite princesse mu ngi tudd euh, soxna Aminata Diassé on lui souhaite un bon anniversaire euh, di nuyu tamit euh, suñu yeneen xarit yoo xamante ni ñu ngi àndandoo ak ñun ci suba gi bokk na ci la Boy mami. booy <laughs> voilà moom taalibe Serigne Fallou la xelam yëpp a ngi Sénégal xelam yëpp a ngi Touba taalibe yi euh, barki démb dama dem euh, aéroport di jëli sama benn doom ndeysaan waaye bi mu yegsee da ngay gis ni nit ñi dañoo ñëw ak xol taalibe yi dañoo ñëw ak xol gis nga bu màggal jibsee euh, tombek nga nekk bitim réew daf leen di jaral c'est-à-dire même bu ñu amul xam nga Sénégal ñëw fi dafa xaw a metti nag ah, booy ñëw da ngay dajale da ngay indi parce que ñëppay laaj mhm. nawle yi dañuy xaar ndey day xaar baay day xaar mbokk day xaar mais da ngay gis ni des fois duñu ko mën parce que dëkk dëkk yëpp a metti Italie France Espagne Sénégal waxi nopp donc ñun du ñu leen comprendre mhm. moo tax bu ñu dee ñëw di màggal si day metti ci ñoom mais Serigne Bamba daf leen koy jaral xam nga ñun bu ñuy bu ñuy ziyaare ji aéroport yi dañuy fees saxaar si wala ngaan mhm. ñu jiital bépp waruwaay dugg dugg ci oto yi sumu suñuy mbaxana toog nag waaw bu dee da ngaa sol mbaxana nag boo duggee ci oto bi da ngay simi sa mbaxana suñu wëris fees dell ak xaalis ñu jébbal lépp Serigne Bamba ak njabootam loolooy màggal kenn musul gis loolu bala nga koo xam sax nga dem Touba dëkk kër goo dugg rek kër Serigne Bamba la mën nga dugg ci kër du ñu sa mbokk du ñu sa xarit waaye boo duggee di nga lekk di nga nelaw di nga naan kenn musul gis loolu wallahi donc ñoom ñu nga xamee ni euh, ñoom ñooy waaja dalal gan yi euh, foofu ca Touba ñu ngi leen di ñaan rek euh, ñaanal suñu borom gën a yokk mën-mën yi ngeen gën a mën a accueillir ñëpp di ci ndokkeel nag bu baax suñu sëriñ sëriñ Abdou Samad Mbakke euh, càmmiñal soxna baali Mbakke soxna Bali Muntaxa soxna Bali mu sëriñ Sooyibu bu euh, nga xamee ni euh, wax naa ko démb ñoo ko jàppee maamam xaadim ak suñu sëriñ boobule di sëriñ Abdou samat waaye di bàyyi xel itam ci njabootu sëriñ Fàllu yëpp suñu xalifa di sëriñ Abo Mbakke ay soxnaam njabootam yëpp taalibeem yëpp ñu ngi leen di ziar ndax moo fi teewal suñu wifi xam nga xale yi seen portable yi wifi ngeen di amee internet man nag sama internet sëñ Fàlloo ma koy jox mooy sama wifi ba tax rek ah kër sëñ Abo dégg naa fa ngay dal sëñ nga bëgg dal dali foofu man du ma wax fan laay dal Touba ma Touba nationalité laa fa am man daanaka muudu muudu laa fii immigrant yi dem fii Syriens yi dem France ak Allemagne man noonu laa ñëwee fii Dakar daanaka migrant laa fi amaguma këyit Dakar leer laa la wax de sama coow li Serigne Touba ko waral nag moo tax aw ma ci sens interdit te dëgg dëgg nag loolu lañu fekk Sénégal euh, donc ñu ngi ciy nuyu taalibe yëpp ak euh, Serigne Modou sama rakk moom nag mooma daa xam mbii moom daf may mbii ba foore fa mu toll waaye yàlla baax na dama ko bàyyi ak yàlla rek euh, di nuyu tamit euh, euh, Euh, Tata Fan je pense c'est euh, moom tamit elle de tout cœur avec nous euh, ñu ngi koy ziar bu baax di nuyu sama beneen yaay boo xamante ni mu ngi Thiès Tata Adja Diallo yow tamit ñu ngi lay bégee bu baax yaay bijou ak maman Kiné moom ma nga ma nga Thiès ñu ngi koy nuyu bu baax fàttewuñu Ami jàlloo ak njabootam yëpp madame Diop moom tamit ñu ngi koy ñaanal ba bëccëg bu neex ci télévision Futur Média Cheikh Ndeye Amilo moom tamit ñu ngi koy ziar bu baax yaay Vitu ak Mariem kooku itam suñu yaay la la ju baax joo xamante ni ñoo ngi koy ziar bu baax a baax a baax a euh, di leen xaar ba léegi ci téléphone bi bu fekkee euh, jàllul ñu ngi ciy jéggalu parce que dañoo changé euh, régie bi ñuy defee émission bi bërki démb ci lañ doon célébrer journée mondiale de la télévision moo tax ñu jël ay matuwaay yu am solo am na ay groupe caméra yu ñu jënd groupe caméra groupe caméra la ñu jënd je te jure ah ouais à la réunion ndi fa foo rew ma waaw jënd nañu ay groupe caméra on a changé de régie waaw yooyu dafa yooyu dafa baax ñu koy wax dafa baax ñu koy wax ñu ngi may wax ni déet noppil cat baaxul déet dañ ko wax rek nañ ko wax rek ah nañ ko wax rek nag nañ ko wax rek nag ah, nañ ko wax rek nag maanaam dañoo dañoo dañoo bëgg a attaqué attaqué attaqué 2016 en force ah nañ ko wax rek nag ah ñu changé régie dëgg yàlla régi bu bees bi moo tax tey émission bi sax dafa yéex a commencé parce que régie bu bees la am euh, yokk nañu suñu caméra yi nag yokk suñu écran yi léegi ay curve la ñu yor ay curve TV ay curve ay curve vraiment nañ ko wax rek nag ah wala euh, euh, xeex la rek xeex la rek te waxoon naa ni xeex doju baaxu ci ah, ba woy wa dem na ah loolu waxoon naa ko xeex doju baaxu ci xam nga donc yooyu yëpp yéen lañu ñu ko jagleel ale euh, bu ñu ma mënee euh, mayaat beneen boo xamante ni dañ ciy woy sama sëriñ euh, di Cheikhul Khadim ngeen baaxee ma ko léegi Alfi fooy dal boo demee Touba. man nga bëgg a àndal yow laay àndal. Ah. xam nga xaw ma Touba xam nga Serigne Bamba ba mooy géej ku naan man. Hmm. waaw damay bañ a réer xam nga xaw ma fa. xamoo tubaa foog nga mais Touba boo demee doo réer. yow bàyyi ma topp la rek Pape. doo réer doo léegi damaa bëggoon euh, ñu tagal ma woy wi mu ngi biir ci suuf ñu ngi ci woy nag ku baax soxna Bali kooku euh, Mbàkke la ak Busoobe déggal loolu nañ ko pelloo tuuti rek ci yoonu màggal gi déggal foofu bu ma tëj de ibbi ma rek may wax leen ma soxna baali mu soxna moon yaay nga ni ana bete bete bi déggal foofu bete bete baage soxna baali moom man yow laa mën a defal yaa ma gënal manka ñii di ma pindi leen ma soxna baali mu soxna moon amoon awa balla mbake awa balla kumba ñuul bete bete bi kookoy yaayu Cheikh Abdou Mbacké waaw waaw déggal foofu kookoy sax soxna baali Touba nag dafa bari ba dafa bëri baali dafa bëri baali xam nga baali mooy soxna jaara ñu tudd soxna jaara ñëpp baali lañ leen di woowee voilà soxna baali bii nag mooy soxna baali moom kay mooy yaayu am Abdou léegi boo bëggee yaay expliqué la nan la ko wooyee xam nga maire bi comme Google damaa def recherche soxna baali résultat yaa ngi ay ta koy way nga ne kuy yaayam dégg nga loolu mbokk ndeyu kan la Sidi Mouhamed Macafan ñooñu ku leen jur ba tey wax mun nu mu juddoo Serigne Modou Awa Balla ku mu bokkal ak kan Ceerno Faati Isa ma ca bëy ci xam nga ñooñu nan lañ leen di tàggee Faat si la libaas demal ak kan si la xadimu ndaw ak xadimu mag kenn ku ne sëriñ bamba dëkkoon na la kuy xadimu mag moo ciy kan xadimu ndaw nag soxna may caatub sëriñ bamba kooku mooy yaayu soxna baali <laughs> waaye ana baayam wala yaayam wax ma rek nuñ koy woowee ba tey ana yaayam kooku nuñ koy woowee. soxna Musle soxna Bigé. ak soxna Fat Dia mu baax mi. yaay ak kan. xam nga ñooñu ku leen jur ñooñu Serigne Bambaye seen baay <laughs> dëggal foofu dëggal li. Serigne moo daawa balla baayam ku mu bokkal. ak ban Serigne. ak ban Serigne. ak Cheikh Ousmane. Cheikh Ousmane ay kan sax. Baye Cheikh Modou Kara sama sëriñ borom diwaanu jawaari tax baari sara iri mouvement mondial pour l'unicité de Dieu kooku ku mu bokkal ak kan Serigne Abbas kookoo jur moom it Bousso moom la ñu fekkoon Touba déggal foofu arbre généalogique laa lay defal histoire laa lay nettali ci baali waaw Modou Awa Balla la ak seex Awa Balla ñoom ñaar maam noo Serigne Bamba ni woon Thierno ko gënal <laughs> Thierno meññ Cheikh Modou Kara Awa Balla ku ba ñuul déggal fi raw rëgin raw giigin giigin gii gii yaayu Cheikh Abdou sang yaram wit rew gigin zaw gigin gigin regigin gigin zagizal gin gizal gi faccoro kooku bàkke ko libaas ma paate déggal foofu kenn du Serigne Touba rew gigin gigin regigin gigin zagizal gizal e waay kan soxna gàtt bu soo yaay jëli ba tey mbokk ndeyu kan waay kan waay. bokk baayu kan la. bokk baayu sama waa ji. ak sëriñu kan la. sëriñu ajaratu maam jaara Aja Anta Sare yaayu Soda Kase ak Musli. ajaratu Anta Anta Caam. Denaago doomam. sa sama waa taalibe Serigne Fall déggal foofu ak kan mooy kan Faati Isa ma ca fan Njaga Isa baay mu ngi ñudu Serigne Kokki Njaga Isa jéey mi gi baawaan ñokk ba màkk maamu mami Jóob bu wareen <laughs> kuñ ko dénk Serigne Abdou Baaxe ma dem sarkaay yaayu kan Mbàkke garmi la kumba jur wede non lii dafa neex nag soxna Bali moomi Mbàkke garmi la awa balla kumba ñuul bete bete man màggal saa yu jibsee damay excité damay excité man waaw loolu yàlla dogal na ko ba may njëkk am oto màggal la man ñaan ci Sëriñ Bamba bu màggal jibsee oto ba may yóbbu Tuubaa na bees moo tax at mu jot ma changé oto changé gu ma nag waaye xëy na lu ne mën naa ne fii rek le premier décembre oto bu bees xaj na ci moo tax bu màggat bu màggat jigsee euh, jegesee xanaa xamoo euh, <laughs> yenn saa yi sax damay dóor sëñ Fall dama koy dóor damay jàkkaarloog nataal bi naan ko yaaram gis nga de oto bi pënd na de sama oto bi comme oto tamponneuse toj na ñaari at munoo fexe ba jox ma oto bu bees yi laay def Serigne Fallou xam nga moom moom bëggul ay ñaan yu lewet lewat yooyu toog naan ko waa waa Mbàkke maa ngi ñaan daal ci barke Serigne Fallou déedéet da ngay wax ak moom lu muy dégg borom na ma na am mu am na taw mu taw xam nga moom dafa ne bu yàggee ma raw sax oustaz njaga wala wala wala Pape Anne Serigne Fallou dafa ne munuma turandoo bu ne ma dogal ko mbootu waaye mën naa turandoo bu ne say waajur aljana bu yeboo sa doom ji nga tuddee Leonardo nga soppil ma turam bi tuddeel ko Alfi eh, tuddee ko tuddee ko Fallou Fallou Félix waaw wala wala rakkam rek waaw wala rakkam rek kii ñëw da nga bëgg dem àjjana tuddee ko tuddee ko tuddee ko galas <laughs> allez 10h45 Sénégal yëpp a ngi préparé euh, kon euh, màggal gi ñu ngi jéggalu bu baax nag ndax bu doon suñu sago téléphone bi baax ci suba gi waaye bu fekkee baaxul léegi dina baax fi ci kanam 4h euh, waa kër Serigne Saliou yi ñoom Amina Poté xam nga waa kër Serigne Saliou nag dafa lay wax benn affaire ci ñoom ñoom dañoo dañoo dañoo kii. ñoom dañoo kii defe naa defe naa sax poté du ñëw tey ah ñu ngi ciy jéggalu elle sera pas de la partie kon tey ci ngoon moom itam day waajal màggal gi dóorkat la boo xam ne nag fi mu ne amul benn jot loo ko wax ne màggal mais bon de toute façon euh, ci biir euh, wareef itam mën nañu fa joxe ay euh, paasu màggal parce que dañ leen di préparer yu am solo yoo xamante ni bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel en tout cas ni ngeen ko bëggee rek man noonu laa koy defee waaw man ni ngeen ko bëggee rek laa koy defee ni ngeen ko bëggee rek laa koy defee euh, di euh, bégal bu baax mami euh, bu décor maam Sira Konaté nee na dina ma teral ci Soxna Bali parce que jigéenu Cheikh Abdoulaye bu Soxna Bali Konaté Décé Konaté Wali xam nga moom maamam moom la ñu moom la ñu bandoon ba le Blanc Rouge ba ci avenue Gambetta yooyu xale yi xamuñu ko <laughs> xamu leen fii Gambetta France la ne daal di koy rëkkal la Marseillaise waaw allons enfants de la patrie bi. dëggal ah. nañu ko ay sénégalais ba tey. lu leer laa la wax de xëy na neexut a gëm waaye man historien laa de soo samay ŋaam man boo ma xoolee rek xam ne dama dama âgé allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé mooy hymne bi xew nga xam ne ñu ngi koy tëgg ci dëkk yëpp ndax attentat yi la Marseillaise maamu maam Siro Konaté dañu ko bandoon bleu blanc rouge bi xam nga drapeau bleu blanc rouge ban dëkk la Italie la ah déedéet muy France Espagne France xam nga chance <laughs> dañu ko band bleu blanc rouge tëggal ko la Marseillaise ca avenue Gambetta moo tax xale bi xaw a tubaab bi dafa laal français uh-huh, uh-huh. gis nga pëy pëyam googu mu nekke ah. pëy pëyi France la <laughs> <laughs> leer laa la wax pëy pëyi France la voilà euh, et Euh, ñu ngi waaj a yéeg nag ci yaay pour waxtaan ak moom parce que mu ngi préparé wareef euh, di nuyu nag euh, bu baax. kor Cheikh Mbaye Thiam Fat Fall ñu ngi koy ziar di ko bëggee euh, euh, fàttewuñu euh, mami nam nañ la mami décor di nuyu tamit Gueye RFM ak waa génération Futur Média yëpp nee na mu ngi souhaité un joyeux anniversaire à Aminta Diassé Fatim Niang ñan ma kura fa binta ndongo mi ci bango yaay roxee yow tamit ñu ngi lay ñaanal bëccëg bu neex maam Cheikh moom itam buso buso la moom it ñu ngi koy ndokkeel bu baax sunu sang yooyu yàlla na seen jàmm yàgg bu ko defee nag dañuy yéeg ci kaw fekk fa yaay euh, di nuyu tamit gañ siri Thiam maaleykum joor dégeen njaata ci kumba fara lamb ak maaleykum fara lamb dogo dogo dogo ba suma taayee bàyyi ajaa gañ siri yaay maa ngi nuyu ku baax maa ngi nuyu ku baax maa ngi nuyu ku am jom kooku kooku euh, fonk sa jëkkër point com fonk sa jëkkër point com waaw fonk sa jëkkër point com. waaw foofu la bokk. xam nga moom euh, euh, moom moom dafa bañ ba turam sax. Uh-huh. daf cee dàkkantal jëkkëram. waaw gaañ maa sàmba. waaw kenn musul gis loolu. loolu kenn xam xam yaa xam nga ne li ma xam nag bari na nag. li nga xam man xam nga lu ma jaaxal. waa waaye Cheikh est-ce que doo mais yaay loolu loolu yàgg na. man daal affaire bi ma naan bi ma naan bi ma naan état laa yaay boobu xam nga ban at la woon. waaw 2011. après après la wax ji dem rek. affaire bi jaaxal xale yi naan état lañu waaye léegi nekkatuma état xam nga lan la. ah kanfoori kanka. ah waaw pire kon man dëgg bëgg wax ni kanfoori kanka laa. yaay maa raw sëriñ si. Ah. man léegi damay fétiche. waaw man dama lay ñaanal léegi nga gis ko léegi. waaye waaye bu dugg ci fétiche léegi yaay man man romb naa état léegi. <laughs> yaay léegi xam nga damaa dugg ci taxi. waaw taxi bi di xël. waaw 2010 laa lay nettali. waaw ma tiit ba ne ko xam nga ki nga yem. Mm. mu ne ma xaw ma la ma ne ko état. waaw gouvernement. waaw yow nguuru lëmm nga yàpp ci oto. waaw waaw waaw xool daa ralentir comme kii. ki euh, kàkkatar kenn musul gis loolu lu neex laa lay nettali yaay. <laughs> boo xam man daal fu mu nekk nii Ila Touba daal moo xew. yaay xanaa gisoo ma li ma def ci sang baali. Ah, sa waaw Muntaxa. xanaa déggoo li ma wax. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga maggal gi li ma ne léegi bu jibsee. man damay excité. damay excité. waaw waaye nag euh, maa ngi ndax eh, dama dama dama dogu woon ni màggal bu jot bëgg naa oto bu bees nag dëgg la waaw loolu waxoon naa ko nag te wax dëgg yàlla sa càmmin sa xarit mm. si rek soo gi aale njaay mm. ngeen bokk benn yaay mm. muy nit ku baax di président Youssou Ndour yàlla na jàmmam yàgg moom miin na kër Mbay Guèye mm-hmm. moom miin na EMG mm-hmm. waaw miin na EMG bu jot nga wax wala deux bu jot ah ma dañ la déggul di ay waay yokkal leen ma yaay waay waay waay yaay loo wax. yokkulee ba bii Diouf yokkal lii waay. yaay normalement. yaa ngi may dégg. normalement at bu jot la nag. at bu jot mais daaw xam nga lu tax ma baal ko ko. Ah. dama fee yàggutoon. c'est que màggal gi passé dafa tombé woon nag ma def fi at léegi comme def naa fi ñaari at waaw miin naa léegi waaw xanaa xamul li kër gi rek laa miin waaw léegi laaj ma li xam naa sax seen souterrain yi ak fi ñuy denc affaire yi waaw lépp laa xam léegi bu yow yëgoo ma ko yow da nga foog di nii damay xëy rek fat samay costume taxaw <laughs> xanaa gisoo di talu maa oto sax ndax passe màggal ak oto bu bees <laughs> yow bi ju fi yokkal ma lii xam nga lu ma xamaat lii bu ci wax sax damay simeeku damaa tàng ah, waaw simeeku def kese waaw simeeku waaw waaw bi nag bii dafa rafet gisoo ni ma ñëwee. waaw yaay li jox la yooyu ñuy fayee billet. waaw affaire yooyu noonu ñuy kiiwee xaw ma nu mu tuddati. waaw carte gab. waaw comme kii yooyu rek carte gab. comme kii yooyu rek su carte gab yi. waaw yow tam yaay. waa <laughs> man damay moroomu xale yi. <laughs> wa wa Baye Cheikh. waaw yaay xam nga ñu ma wax. Ah. dañ ma ni màggal gii jib si. waaw sa doom ñaata nag la lay indil ak ñaata gileem. xam nga héliport ba. waaw xam nañ la. waaw. déggoo li ma wax de. waaw xam naa. ah xam nga ne ku ne héliport wax na lu rëy. waaw waaw waaw yaa dama bëgg su ma waxee lu rëy nag nga kontaan. waaw wax loolu moom loolu moom. loolu moom xam nga xam nga héliport ba ña fa dëkk ñëpp. waaw xam nañ ne xaaroo nagu kenn. waaw. dégg li ma la wax yaay. dégg nga dégg waaye sa bos maa koy xaar. xale xale musu la ko wax sa maa ngi koy xaar. xaaroo nagu kenn <laughs> sa bos maa ngi koy xaar dégg lu ma wax la sa nag ak sa gileem maa ngi koy xaar maa ngi xaar sa sa nag te ba pare xam nga yan genre nag laa wax. yaay ba pare Touba boo fa demee. ah bu namm gëléem. ah vieux Diouf Cheikh bi. vieux Diouf vieux Diouf Cheikh Béthio ñaata gëléem lay wàcc déggante wu ma ak sama. waaw nañu déggante nag de kaay nag nañu leen déggante yaay mani. ah yaa ngi may dégg. yaa maa ngi lay dégg mani Touba ku fa wàcc waroon na mu waroon na mu gëléem ndax cheikh bi. est-ce que yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg bu baax. waa léegi. waaw man fu mu nekk nii sa gëléem laa bëgg. te ban yan géléem yi nga xam ne dañu am boo suñu leen di dàq ñuy daw dëgg dëgg dëgg dëgg ba pare yaa naka jekk ku la xool xam ne da bëgg lu baax waaw loolu laa bëgg léegi nag sa nag man bëgguma nag yu simple yi de nagu yëkk yi yi nga xam ne yi jar sa cent nga xam ne day am ay boos ñuy daw noonu man yooyu laa bëgg yow laa bëgg mu yaay namoo namoo nagu kenn waaye sa bos sa bos bul daw sa bos yaa ngi dégg ba pare ba pare laaj ma soo paree loo ciy teg loo ciy teg laaj ma ay laadum ay laadum. laadum. laaj ma lan ak yan xeetu ganaar. ak yan xeetu ganaar yi am ange. yaay nag naka jekk xamoon naa ni. ganaar yi am ange. xamoon naa ni su ma duggee ak yow ci gaamu pikiiru màkk yi. waaw xamoon naa ni di nga fayu. <laughs> léegi ma jéem a wuti ay ganaar yu am ange. waaye man waaye xam nga programme bi xam nga tax ma koy biral. waaw dama bëgg ñu jàpp ci sa combat parce que yi ma la teg moo diis. yi ma la teg moo diis. yaay xam nga lu juróomi million wadd. mais mais mais li ma gën a bëgg mooy. ah yaay daal bëgg naa oto bi ñëw nag. waaw xam nga nag bi na bees daal waaw. kay wax waaw dafa leen di reewal. bàyyi Mandela boobu. waaw day yàq ay emplois te du gis nga. dëgg la ku fi ñëw rek belli. dëgg la fa tabaarakalla macha allah. dëgg la kon nag lii ngay wax nii su ko déggee. waaw laaj ma lan. waaw ak soxna ay Aïda Coulibaly yaayu Mandela. yóbbante fanaan na biti. waaw waaw. yaay waaye bu mu joxe ñaari oto de man rek. ah sa yaay nag. da nga mel ni kuy kàttaale sa oto. sa yaay nag. yow da ngay kàtt oto yooyu. <laughs> waaw sa yaay nag yow xanaa moom yu yu mujj yi bees. yaay yaay léegi kon dañuy nuroo waat da nga am rouge ma am rouge. waaw léegi parce que gis naa dawalatoo blanc bi léegi. waaw nañu tànn couleur ñun ñaar. ban couleur. yaa dama bëgg ñu def mauve. ban marque. mauve rek laa bëgg mauve ban marque. bi bi mujjee génn noonu xaw ma turu oto. waaw bu mujj bul publicité. waaw bu ñu publicité waaw bu mujj suñu toogee ak Youssou dinañ ko wax ban marque. waaw yaay. Eh. imagine nga ñun ñaar ñuy dawal oto yu mauve. Ah, ci dëkk bi. waaw xalaatoo ko. <laughs> ñu dañu leen di Adja ma li gën a neex. <laughs> waaw déglu ma rek ak déggil waxit la déggil la laaj. waaw ñu ngi jeexal bi yokk ci jaune déggoo ma de. <laughs> bu jaune. léegi wax juut sow du sow ngi. moom bi bi yokk ci jaune. kon na la ñuy dee. yaay au revoir léegi su ko defee xoolal yow sa oto. Hmm. yow sa oto déglu ma taalibe nga. waaw sa oto da nga ciy bind jërëjëf sëñ Fallou. waaw man sama oto ma bind ci jërëjëf sëñ Touba xanaa xam. waaw loolu loolu dee na ñu demee ko màgg kon jeex na kontaan na kontaan naa je t'adore <laughs> ma Alfie on s'adore. voilà merci maman yal na yàlla laf cat. jërëjëf yal na yàlla laf cat. jërëjëf Diallo kontaan nañu. <laughs> merci kon mbokk yi mu ngoog fii la ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi diggante 7h jàpp 10h magazine bi la diggante 10h15 euh, ba 11h yeewu leen plus Alfi rendez-vous demain bu soobee yàlla suba dina tombé ak mercredi. di nga togg pour xale yi. ñun tamit ñu defati suñu yeewu leen ak yeewu leen plus merci à toute l'équipe de production dirigée euh, par Pape Samba Thiam mon ami mon frère l'homme qui n'a peur de rien l'homme au doigt d'or le grand réalisateur de tous euh, di nuyu tamit. Euh, euh, Papa Ndiaye Ngalgu euh, doomu ngal Ngalgu Ndiaye boobu ak association bu mag bi ñu ngi koy ziar bu baax di ci bégal itam Mami Sobel moom neen dafay màggali waaye xaw ma fan lay dal Euh, loolu mooy problème bi parce que man ànduma ak Mamy Sobé la ah. man moom franchement du ma ànd ak moom voilà mais bon de toute façon euh, euh, ñëpp ku lim juum en tout cas ak fu ngeen mën ci nekk ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média Petit Ndoy Efat boroom date bu réy bi moom itam ñu ngi koy ziar moo filmé et puis mon ami mbay Diouf off tom ak merci Adja Diallo ñu ngi koy ñu ngi koy gërëm ci régi bi ak Babacar Abdou Aziz Thiandoum Monseigneur on n'oublie pas Tog ak toute l'équipe de production defe naa fàttewuma kenn ak waa service Euh, à valeur xaw ma de valeur ajoutée borom xaalis yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax on vous souhaite une très bonne journée à à très demain matin.